mooy ñëw ñoom ñoom ak maanaam rek a jaaxal ñoom ñu dund mooy mooy ñoom ñu dund loolu. Thank you. ci yéen ndax nos bi dana nos bi dana waaye su ma ko waxee sax mu baax ma ko dégg su noonu ñu ne ma du noonu wala suñ wax na ko bopp dénk ko ñun ñëpp ñu ñu jëriñoo dénkaan doole lu bare kon na nga xam ne li su si bopp loolu dañ la ko wax nga xam ne doonul loo xam ne ku neex dugg ku neex bàyyi trinité boobu ñuy wax naan yàlla ak lislaam dafay def yàlla yàlla rek yàlla yàlla kenn la mu bind moom moom mooy mooy rey mooy day kuy dugg ci lislaam day gëm ne gëm ne yàlla moo ko bind ndax leneen li ñuy gis lépp yàlla rek daamu yàlla la moom mooy moo moo leen di fi mu toll nii boo diw mooy mooy rey nit mm-hmm. mooy rey nit ñi mm-hmm. rey na la woo woo kooku mais mm-hmm. soo liggéey dee na naturellement yàlla ko rey naturellement boo ko liggéey mooy yàlla ko kon pasos bi pasos bi dugg ci lislam mooy yàlla kenn rek la amul doom amul amul suite dara kon pasos bi nit pas bu dul jurisam yàlla kenn rek mm-hmm. amul doom mm-hmm. amul soxna mooy mm-hmm. soxna xam nga mooy lan hmm? soxna la wax mooy lan soxna hmm. Hmm. <coughs> amul kenn ku koy jàppale ci liggéeyam bu yëngu moom moo tax loolu yëngu mhm. waaw su ko defee sëñ bi dana la wax kàddu yi nga xam ne mooy dugal nit ci lislaam kàddu yi nag li muy tekki rek mooy boo bu nit amee pas-pas boobu xam ne yàlla moom ñun ñun jullit yàlla rek la ñuy jàmm yàlla kenn la mhm. amul moroom ci dara mhm. moo fi nekkoon ñun ñëpp dañuy dem ku ñëw ko bo lañ fa war a nekk jot nga dem bàyyi ko fi loo gis muy dox moo koy doxal loo gis mu dal moo ko dal moo loxo ma ci nekk ci waxee waaye du loxo du sama loxo bi waaye noonu la ko nit mën a dégg su ko defee nag kaddu yi la suñ bi wax li muy tekki mooy ki bu jàppee ci biir xolom génne ko ci làmbañam wax ko ñu dégg muy prestation de serment daa mel ne muy serment bu ko xasee bu wax nag ba ñëpp dégg ko day am lu koy gunge muy ay jëf daana la ko leeral waaw kaddu yooyu nag mooy maa ngi maa ngi seereel yàlla maa ngi seereel ñépp ne gis ni ki tey maa ngi dugg ci diine ci sallallahu alayhi wa sallam sa bi sallallahu Muhammad dañ ciy dugg nag mooy nit ki day gëm ne ci xolam yàlla kenn rek amul ku koy defar dara amul wéttal amul moroom ci dara te ku xase ba wax tënku ci nañ ko fañ ko joxeñ mu tënku fa lu ko amal njariñ la bu ëllëg ñe dégg seede yi seede yi ñoom ñoo wax wala bataaxal bi àgg ci ñoom te nanguwuñu ko it mm-hmm. am na lu leen di xaar ëllëg mm-hmm. loolu ñëpp la moom mm-hmm. waaw la amul soxla comme ni nga ko xamalee soxla xam nga lu mag amul nijaay amul yaay amul tànta amul bàjjan amul maam li nit ñi am li ñuy am amul ci leen waaw moom nag bi mu wéetee ci taxawaayam boobu ci la fab ci ñun nit ñi jëm bi mel nañoo tudd Muhammad mu wax ko la mu koy wax mu ñëw di ñu ko nett kon mënu si si gëm yàlla si taxaw ne ci ne ci biir lislaam day gëm yàlla gëmaan ne yonent bi ndawam la ñi jiitu Muhammad yi moo leen yónni woon ñoom ñëpp seen i jëm yàllaa ko xam waaye ku jàng alxuraan da nga ci fekk lim bu bari bu mu tudd seen i ñoom ñëpp la ñuy marché gëmandoo yàlla moo leen yónnee woon waaye bi Muhammad ñëwee nag moo mottali kenn ku nekk ñi dañ doon liggéey ci lii ñi liggéey ci lii ñi liggéey ci lii waaye ba mu ñëwee la boole leeral lépp keneen du ñëwaat ginnaaw tudd na wute am loolu mooy baat yi dugal nit ci sam suñu daan la ko wax su noppee daan la wax kuy ab jullit ñu ñu ñuy defee lu tax ñaan mooy ab jullit أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليكو سيرين جي واحد مون ني لا ساكو متوبل دوغل لي دين الاسلام بعد يما لي واخات موما جون ديغل غير ما واخات لا واي لب سي موم لا جوي اك دافار اك بوغل واخات من نجارات سون لام waaye damaa doy ci lépp ba tax ma ne nañ ko indi ci yow moom it moo wax ne nañ ñëw fii defe ko fii waaye li muy li muy liggéeyal sëñ Tuubaa ci lislaam moo tax bi nga dikkee ne da bëgg a tuub ci man ma ne la nañ dem sëñ Ahmadou Rafahi moom laa leen booleel dafa tuubee li ci topp nag yéene nga ko ci sa xol wax nga ko ci saw làmmiñ li des mooy jëf ko ci say cër li ci jiitu mooy fexe ba xàmmee safara tey jëm def ko muy sa yitte foo mën a ne am na ku dend ak yow ku jàngale diine boo demee nga wëllëranteeg moom ñaan ko mu xamal la sa diine xamal la li diine bëgg ak li muy bañ la ca jiitu mooy xam na ngay na ngay jullee ak li yàq julli koor natt asaka aj ak ya yëpp te ànd ak diine ji nga yooyu di faral di jëmm yëpp nga xam ko te def sa itte tey ànd ak ñu baax ñu lay gën a jëme ci diine tey moytandiku àndandoo yoo xam ne dañ lay yàqal lu jëm ci diine loolu rek mooy liggéey bi dégg ko am na benn téere boo xam ne nag tënk na lu bari ci loolu man hmm, ngaa jàng wala fa la am français nga mën a jàng français am na bu sëñ son yi loo si sa diine lu la jaaxal boo wootee mu leeral la dégg nga ko léegi nag dugg nga ci diine leneen li ci toppaat nag mooy dafa mel ne penc mi dugg nga ci kenn tëneetu la ci yaa ngi ñi fi ne woon a yem képp amut kii da cee yàgg kii ci fi ne yàgg yam di bu fekkee nag da ngaa taamu nag dugg ci ya nga wax bu fekkee da ngaa bëgg nekk jullit kese kese sañ nga dem nekk jullit kese kese murid nga bëgg doon gannaaw waxtu sore bisimilah léegi nag da ngay daan dugg ci na koy def am na fa jàpp jàpp tànn loxo jaayanteel doon teelim ci tubaab ci moom tey wut si ndigal ci moom waaw bisimilah tànn mu jàng mu dem jàngal ko yow loolu mën na ko bëri a jàngal jiili mën na ko mën na ko ñaan ko waxal neel jox naa sama bopp sëñ Tuba àdduna àdduna ak alaxira doxale fi sëñ Ahmadou Rafaay yi mii muy sama jangan ci moom jangan laaj ndigal ci moom nag tey déglu tey déglu dégg nga jiili jàngal ko ni ñuy jàppe ko ni ñuy mu dal jib dab jàpp balaa ci yóbbu ko la nga ne nga caa di wax dëgg di yee nit yoon waaw jërëjëf kon loolu daa war a ñëpp yow mi daa mel ni ñëpp ñëpp jërëjëf kon a baax ci taxawaay nga ko defal yëpp la war a la mu war a digle teel la mu leen ciy wuutu te xam naa ne fi la bokk yëpp ne fi la taalibe yëpp ne jërëjëf Mbacke jërëjëf yàlla yàgg lool waaw waaw. ñaan ñaan ñaan

كنا قلنا باخ لنا نعرف <laughs>